mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar sëñ bi Mbàkke <laughs> yéen a ngi ñoo ngi leen di baalu àq bu baax te di leen baal àq di ñaan yàlla mu nangul nu sunu koor te bii bañ a doon sunu koor gu mujj yàlla may jullit àddina yépp jàmm ak i xéewal ak tawféex moo ngi leen di ziyaara ci bu wér a wér a boo xam ne bu dëggu ci noonu di ñaan sunu waxtaan wi am njariñ moo ngi ñaan képp ku ko déglu it liñ bëgg a leeral te mu bari lool lool lool xaw a mel ni lu mën a leer ci sa bopp euh, mooy li nga xam ne fan yëpp ñu ñu ci interpellé Euh, muy problème mu Palestine bi ñu bëgg ci indi ay leeral tuuti rek xam naa ni li ëpp ci bokki jullit yi wala bokki taalibe yi dañuy dañuy jàpp rek ne léeg-léeg sax day am problème boo xam ne du la ñor fekk euh, na nga ko xamee mooy tax yenn position yi sax boo ko dee jël euh, da ngay xam ne rek Euh, xëy na du am njariñ li am njariñ mooy nga wax nit ñi dëgg-dëgg li xew euh, baax na trop nag euh, ngay wax je suis Palestine nangam ak nangam yooyu nit ñi baaxoo nañ ko sës ci dara waaye li am te wóor mooy histoire bu compliquée la bu yéeme yéeme yéeme boo xam ne Euh, jaxasoo na lool ba mu àgg ci lool ñaare nag nit ñi dañuy faral di def maanaam politique ak wàllu diine ñu di ko taqale fekk bu fekkee da ngaa taqale politique ak diine problème mu Palestine doo ko mën a comprendre ndax lépp diine la lu cay juddoo door caa juddoo loolu nag boo bëggee mu leer la dëgg dëgg dëgg. da ngay dellu ci maam maam bu bu mag ba xam nga euh, alquran dani inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifa maanaam ibrahima aw xeet la xeet boobu nag mu doon euh, sun boroom ñaari doom la ko jox yu góor muy ismail ak ishaq Euh, waaye ni ñu demee loolu lépp du jaral leeral waaye daal li wér mooy Ibrahim araab la jóge na fa ànd ak Saara soxnaam ñu dem Égypte mu am lu ñu tëral ngir Saara mën a mucc moo tax ñu jël xaggaar jox ko Saara ngir mu nekk ab jaamam mu jël ko moom it may ko Seydina Ibrahim soxna kon euh, saara mooy yaayu isxaq hagar mooy yaayu ismail isxaq nag moo jur yanquba yanquba moom la tubaab yi di wax joseph ba tey mooy israël joseph mooy israël c'est le même prénom benn tur la moom nag moom la yàlla may fukki doom yu góor ak ñaar ak ñaar yu jigéen fukki doom yu góor yooyu nag ak ñaar moom la tubaab yi di wax communément les douze tribus d'Israël parce que ay ay ay sëtam lañu moom Israël maanaam Yankoba moo am fukki doom yu góor ak ñaar yàlla def suleymaan <clears throat> yàlla def euh, yuusuf nekk doom ji nga xam ne moom la ci gënoon a sopp histoire am alquran nettali na ko nettali bu rafet ndax suñ boroom sax dana ci xisa yi gën a rafet ci la bokk gént ga mu géntoon ak mm, frère yi niñ ko jëlee def ko ci teen bi ba yàlla dogal mu dem euh, misira ba ni mu ni ñu ko jiiñee li ñu ko jiiñ sunu borom laata mu ko setal épreuve bi mu jaar mooy dugg na kaso yàgg na fa waaye bi mu génnee ci kaso bi ndax xam-xam bi ko sunu borom may ci gént gi sunu boroom def mu nekk tey boo ko doon calculer da danga koy def ministre peut-être de l'économie ndax booba économie bi yépp mooy ab dund ndax juróom-ñaari at yu naat lañu waroon am ak juróom-ñaari at yu bekkoore kon muy fukki at ak ñeent yoo xam ne nam ko waxee ci alquran ne moom ku li mu li muy laaj ngir ñu jox ko ku ko xam la te ku wóor la ñu jox ko ko ngir ab xam-xamam ak wóoram maanaam c'était un très grand gestionnaire bi yàlla dogalee loolu am euh, mujj na ci gàttal euh, buuru Égypte bi tuub mujj na it bokk yahud yi yaatu fa ba noonu mu fa nekkee di liggéeyal boroomam ba yàlla jële ko fi buur ba ca topp nag eh, dafa féttirlu ba ñuy toppante ba mu agsi ci Ramsès II nga xam ne moo dajeek eh, benn jamono ak eh, mu yont yàlla Moussa yont yàlla Moussa sët la ci fukki tribu ak ñaar yooyu nga xam ne moom la ba am Euh, mi ngi ci sëtoo ci tribu bi ñuy wax la tribu de Juda donc moom bi mu ñëwee sun borom mission bi mu ko jox mooy mu dem wax Firaaw na ne ko na yàlla boo xam ne benn la bu ñuy jaamu moom yàlla jooju ci la Souleymane nekkoon ci la ay ay waajuram nekkoon ci la ay maamam nekkoon ci la damay juum rek naan Souleymane Yuusuf laa bëgg a wax ba yàlla dogal mu féetéerlu moom moo jël peuple Égypte bi ci ndigalu sunu borom jéggi ak ñoom ngir yóbbu leen fi ñuy wax la Judée nga xam ne euh, suuf soosu ci tegtalu yàlla la ko sedd Seydina Muusa bëggoon a dëkkee ak njabootam moom ak Haaruna rakkam euh, nga xam ne bi mu demee jël ndigali yàlla yépp dellu si nag euh, peuple la nag boo xam ne bu terrible parce que ci ñeen fukki fan yooyu rek Euh, créé nañ fi li ñuy wax veau door maanaam aw nag woo xam ne ci wurus lañ ko tëgg di ko jaamu ndax booba dañ jàppoon ne euh, ku baax ki du dellu siwaat bi ñu demee nag ba tiim suuf si ci benn mont bu ñuy wax la mont Nebo euh, foofu la Seydina Moussa mission mi yem mu wàcc fa ab liggéey ñoom suuf soosu naka jekk nekkul suuf soo xam ne fa la ñu juddoo yaroo fa màgge fa fekk fa baax suuf la soo xam ne yàllaa ko tegtal yont yàlla Moussa mu jëme leen fa ba ñu fa nekkee nag euh, dem na ba ay jëmmi jamono mu am ay jafe-jafe ndax euh, diggante bi euh, li ñuy wax assyriens yi ak babyloniens yi ak égyptiens yi mayuñu leen jàmm léeg-léeg ñii ñëw dal seen kaw ba yilif leen ba yàgg ñee ñëw dal ci kaw ñee yilif ñële ba yee ñee ñëw dalaat ci kaw ñële yilif leen Euh, loolu moo tax bi ñu mujjee nag dañ leen a déporté Babylone mooy entre moins 603 avant Jésus-Christ et moins 539 bi nga xamante ni léegi euh, Perse yi ñoo mujj dominer babyloniens yi bañ leen dominer nag yàlla dogal ñu autoriser ña nga xam ne mooy peuple yi ñu dominer woon ñu dellu ci seen suufi cosaan ñoom ñëpp euh, ci la yahud yi dellusee ci seen suufu cosaan boobu nga xam ne mujj na parce que loolu euh, prophétie bi moo tax mu mujj doon seen suufu cosaan donc bi ñu dellusee foofu mu amaat euh, loolu mooy 446 la donc mooy moins 334 le Philippe de Macédoine moom it moom la ñuy wax Alexandre le Grand jóge Macédonie di di di wër nga xam ne moom ci la dem ba dominer àddina bi yépp yàlla dogal moom fanweeri at ak ñett rek la dund faatu bi mu faatoo ay généraux ñoom ñoo donn li nga xam ne mooy empire bi mu euh, dominé woon euh, Séleucides yi nag ñoom ñoo jëloon côté bi ñuy wax la Judée nga xam ne ñoo ko yor ba jamono yi nga xam ne Antiochos sept moo fa nekk mu door a am nag benn ethnarque boo xam ne Simon la tudd c'est-à-dire prêtre juif bu mag la euh, moo fippu ba ñoom ñu amaat benn liberté ci seen biir suuf soosu euh, bi ñu demee ba moins 63 avant Jésus-Christ euh, mu am une conquête romaine boo xam ne moo ñëwaat dominer leen loolu mooy contexte bi am bi Seydina Isa ibn Mariam di gane àddina waaye diggante boobu nag comme suuf soosu sunu borom moo fa tekkaloon yont yàlla Moussa loolu moo tax premièrement mu nekk symbole pour le judaïsme parce que dafa mel ni li ñuy wax la terre promise euh, ñoom li ñu ko jàppee mooy seen aljanna la ci kaw suuf maanaam seen mbir yépp fa lay sottee fa lay baaxee seen yaakaar yi euh, lépp fa lay firiko euh, bi Seydina Isa ibnu Mariam gane àddina nag fekk diggante bi itam yont yàlla Daawuda jaar na fi yont yàlla sulaymaan doomam jaar fi gannaaw gi euh, bi Pierre bu si bi Simon etnarque boobu fexe ba juif yi am liberté ci la ñu fa tabax le temple de Salomon bi ñu ko tabaxee nag ba romain yi ñëw dominer leen fekk na temple bi mu ngi fi euh, Isa ibn Maryam gane àddina ñoom yahud yi xamoon nañu ne am na messi buy ñëw mooy di ñuy wax almasih moo tax yoon ci àlla Isa bi mu ñëwee alxuraan bi mu koy tudd lenn almasih Insa ibn Maryam waaye nag xëy na yahud yi fi ñu ko doon séentoo ak ni ñu ko doon séentoo ak ni mu ñëwee moo bokkul parce que euh, bu weesoo Moussa lañu am ci ay yonent yépp ci seen tribu yooyu lay juddoo non seulement mais buur lay nekk mooy nguur yi nga dégg nguur Seydina Daawud nguur Seydina Suleymaan ak yu demee noonu waaye ab yonent boo xam ne euh, kañu ko bàyyale muy Joseph le charpentier <laughs> yàlla dogal na amul wërsëg way juramu jigéen itam yàlla dogal na amul wërsëg judduwul ci famille aristocrate euh, ñëwin ba it nekk lu kéemaane loolu dafa mel ni lu xaw a tas seen yaakaar ci ñoom parce que réforme yi mu woote maanaam Seydina Isa dafa gënoon a jege baadoolo yi ak ñi ñàkk ak ñi torox ak ñi ñu opprimé mais boobu fekk na quand même euh, juif yi yëpp dañ leen a opprimé parce que dañoo nekk sous la domination romaine donc ñoom liñ doon yaakaar ne mooy messie bi moom lay def mooy bu ñëwee daf leen di libere sur la sous la domination romaine loolu nag amul bi mu ñëwee wax na leen ne leen moom yooyu taxu ko jóg ba ñu koy natt ci impôt yi ñu doon fay ak lan moo tax ñu war a fay impôt daf leen a laaj ne leen pièce de monnaie bi lan moo ci ne ñu ne ko César mu ne kon rendez à César ce qui à César et à Dieu ce qui à Dieu ñoom it ñu jaaree fa weddi ko waaye ñi ko gëm nga xam ne. ci seen biir lañu sosoo ñooñu la ñuy wax nasaraan nasaraan tekkiwul tubaab chrétien lay tekki yahud yi kon ci ñoom daanaka la nasaraan yi sosoo ànd ak Seydina Isa ibn mariam bi mu amee fanweeri at ak ñett euh, ci la ñu ko boom euh, bi ñu demee ba mu amaat nag fanweeri at ak ñett après Jésus-Christ ci la juif yi jëkk a révolté wu euh, ci suuf soosu nga xam ne mooy Judée bi ñu demee ba rebellion boobu dañ ko maté donc bi ñu demee ba 132 ci la ñu defaat beneen rébellion ñu matewaat ko maté bu métti ba pare yàq temple de Salomon bi ba mu des benn mur loolu la ñuy wax le mur des lamentations mooy fi mu ne nii actuellement euh, mur boobu ngeen gis rek waaye nag euh, après dañ leen a interdire Judée maanaam euh, vers 412. ci lañ leen tere suuf sa ne leen buñ buñ fa jaarati dàq leen tasaare leen donc à partir de période boobu amatuñu patrie nekkatuñu fenn dañoo tasaaroo euh, yàggul dara rek euh, sunu sang bu tedd bi feeñ muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi tawféex ak jikko yu rafet yi mu indi yëpp ak jàmm ji mu indi ndax diineem ji islaam Euh, nungul sa boroom la waaye itam jàmm ji muy firi ndax yax bi lépp a ngi ci biir euh, loolu nag tax na euh, boo xoolee ci démb rek bi Cheikh Mountakha di wax dane xeex yi nga xam ne moom la lislaam xeex yépp mën nañ ko tuddee légitime défense parce que lu juddoo ci benn nit mënta amee violence waaye nag bu ñu demee ba nga xam ne benn nit boobu ak tuuti nit ñi mu àndal mbooloo mi ci ëpp dañ leen a bëgg a faagaagal ndax dem nañ ba xam ni mënuñoo jam Seydina Muhammad ci xam-xam ndax jàngul waaye li mu leen di wax ñoom ñi jàng xamu xamuñu ko mënuñu ko jam ci taaru kàddu yi muy wax ndax alquran lenn melul ni te alquran it di kéemaanu yàlla buy wane ne nekkuk yàlla wir la yàlla moom waajib la yooyu nag tax na bi ñu demee ba xalaat ne amuñu fenn fu ñu ko mën a jaar benn nañ ko faagaagal rek mook aw xeetam su ko defee ñan nangoo topp Muhammad sallallahu alayhi wa eh, jeex tàkk moom it ñu reyaale ko benn yoon yàlla nag dogal na seen pexe yi antuwul mooy xeex yi ngeen fi dégg ba dara yépp fu fi ne rek ñoom ñoo tàppaas jullit ña lijjanti ay pexe ngir jëlee leen fi daanaka bu fekkoon ne loolu am na kon tey dañuy wax le génocide des musulmans waaye yàlla ci jàpp ba mu gàddaay ba sun borom def mu bàyyeekoo fi bi mu fi bàyyeekoo nag 691 euh, euh, Dôme du Rocher ci lañ ko fa tabax muy masjidul Aqsa euh, ndax it bi fi yonent bi nekkee itam teel na ñoo xam ni maanaam Jérusalem symbole lay doon ci lislaam symbole la ndax buñ buñ daan julli fa la ñuy jublu yonent bi bi muy ràññaan li ñuy wax voyage horizontal bi subhaanallazi asra min al masjid al haram ila al masjid al aqsa la kon euh, dafa mel ni dafa jóge màkka dem ba Jérusalem suñ borom wàccee yonent yi mu jiite leen doora nag def voyage nocturne bi mais de manière verticale mooy wujj ji gi mu wuy ji suñ borom ndax foofu la bën bën bi nga xam ni euh, dafa dëppoo ak asamaan amul kubéer amul dara foofu la tollool Euh, loolu moo tax euh, muy lu ama am solo lu am doole ci lislaam gannaaw gi la ñuy jublu màkka waaye 691 la ñu tabax Dôme du Rocher donc vers 700 euh, conquête arabe yi dem nañu ba toll foo xam ne ci biir ci biir àddina bi kawe na lool parce que am na ci dëkk yu bari yoo xam ne dem nañu ba ba ba ba dominer ko surtout bi ñu commencé di dugg ci sud Europe bi mooy ay Espagne ak yooyu jaar Constantinople jaar Égypte et cetera dem nañu ba benn pape bu ñuy wax Urbain II parce que dafa ne il faut ñu organiser ay croisade moo jëkk a joxe ndigal pour ñu organiser ay croisade parce que boobu euh, quand même lieux yi Euh, chrétiens yi dominé tuñu ko yahud yi dominé dominé tuñu ko jullit yi ñoo ko dominé euh, bi mu ko defee nag jullit yi ko dominé woon mooy turc kiit yi nga xam ne boobu dañ leen daan tere ñu am accès ci barab yooyu ba 1120 ci la li ñuy wax les cheval les pauvres chevaliers du Christ ñoom it formé wu nga xam ne benn français moo ko formée ñu dem ba mille cent vingt neuf ordre des templiers juddu nga xam ne boobu nag croisade yi am na effet chrétiens yi dem nañu ba jëlaat Jérusalem euh, donc ordre des templiers ñoom ñoo doon garde li lieux yi nga xam ne bëggoon nañu ñu wattu ko di ko sàmm ba yahud yi euh, ak jullit ñi duñ ko mën a yàq nasaraan yi suñu bëggee aj si jógee Europe wala feneen dañuy mën a ñëw donc ordre des templiers aussi non seulement loolu dañ ko doon liggéey mais aussi boo masaan di jóge Europe di ñëw sa or sa xaalis ak say takkaay pour bañ ñu koj la ci yoon bi faagaagal la euh, loolu moo taxoon ñu ñu def ko ngir boo boo leen ko joxee soo fa jógee boo ñëwee dañ la koy mën a delloo ak seeni intérêt bien sûr donc ordre des templiers boobu eh, bi ñu demee ba 1291 ci la mamelouk yi ñëw ara ay arab lañu jël si fi ñuy wax Saint-Jean d'Acre saint d'Acre aussi Galilée ci la bokk nga xam ne kon ñu ngi ci suuf si ba léegi templier yi nag daw dem Chypre boo xoolee Chypre ba léegi aussi statut boobu day am cest à répercussion yooyu mooy tax ñuy dem ba ñuy wax ne fii paradis fiscal la donc euh, ñoom aussi Euh, roi de France bi ñu wax Philippe le Bel dafa xëy joxe ndigal pour ñu arrêter leen ñoom ñëpp parce que boobu euh, dañ leen a accusé d'hérésie d'idolâtrie de sodomie ak euh, pratique homosexuelle et cetera rey leen rey cay ñu bari donc am na ci ñoo xam ne dañoo disparaître ànd ak yenn ci seen alal ya nëbb ko après ci la ñu lakk Pape ci la ñu lakk Jean de Molay euh, part bi bi ñuy wax Clément V joxe ndigal pour ordre des Templiers ñu diddi ko mais boobu fekk na mu rentrer maintenant dans la clandestinité euh, bi mu rentrer dans la clandestinité aussi xamatuñu ci ñoom dara waaye fekk na alal yu toll noonu ak lenn ci ay nit mënul disparaître noonu Philippe le Bel nag kuwam daf ko réussir parce que Euh, commissaires yeeg préfet yi nga xam ne ñoom la joxoon lettres yi da leen ni tel jour lañ koy ubbi c'est-à-dire euh, le 13 octobre la leen waxoon nañ ko ubbi nañ ko ubbeendoo ñoom ñëpp donc looloo tax opération am yàquwul bi ñu demee ba 1215 bon fekk na France juddu parce que toujours dañuy wax ne France mi ngi juddu avec ce qu'on appelle le le baptême de Clovis mais 1215 li tax mu am solo. mooy ci la la bataille de Bouvines ci la am bi mu amee nga xam ne buuru France bi ñuy wax Philippe Auguste dafa doon xeex ak ñu ko ëpp doole bi ñuy xeex ak ñu ko ëpp doole euh, ñooñu paysans yi mu amoon moom baykat yeeg néew ji doole yi wëlbatiku ànd ak moom xeex ba moom ci boppam mu gañe donc bi mu gañee roi d'Angleterre bi ñu wax Jean Santerre mu dellu Angleterre euh, xëy na ñiy wax ci wàllu diine maanaam li jot a li jot a jàll ba ci yont yàlla instant bi mu ganee àddina yont yàlla instant bi mu ganee àddina te catholique yi ak ak yahud yi commencé di weddante loolu boo delloo ci alxuraan da nga koy gis waqaalatil yahudu laysati nasara ala cheyin waqaalati nasara laysati yahudu ala cheyin donc loolu mooy li nga xam ne mooy mooy principal problème mu débat bi mooy yahud yi gëmuñu Isa ibn Maryam te yahud yi nga xam ne dañoo topp Isa ibn Maryam di nasaraan ñoom dañoo wëlbatiku wax ne ñii nga xam ne gëmuñu Isa te ñëw na ñooñu it nekkatuñ ci dara euh, mais bi bataille de Bouvines bi amee Jean Santerre bi nga xam ne moo nekkoon roi d'Angleterre dafa dellu ba mu delloo na nga xam ne suuf yi mu amoon ak li mu amoon France ak yëpp da koo ñàkk Euh, yahud yi ñoom ñoo ko woon ak ne ko parce que ñoom ñoo yor commerce bi boobu tas nañu fépp ci àddina waaye Angleterre ña fa jotane ñoo ko ne ñun euh, xam nañu ne taxes yi gën a metti parce que li ëpp ci li nga amoon ci ay suuf ñu lay fay ay impôts yooyu ñàkk nga ko kon ñun rek ñoo fi sës mais ñun ñi nga xam ne amuñu benn droit amuñu benn liberté amuñu benn statut boo ñu naree teg ay impôts di ko yokk il faut nga accorder ñu ay droit accord de droit yooyu moom moo jëkk a juddu ci diggante boobu nga xam ne moom la ñuy wax mag na Carta bi mu amee euh, yahud yi commencé di am ay droit tuuti tuuti bi mu commencé dem ay droit tuuti tuuti nag benke ñenke yi moo bari parce que dañuy woo buur bi lu ci bari di ko wax ne ko ah lii faw nga soppi ko boobu Angleterre li ci am solo mooy île bi kese la doonatul dara ak Aquitaine ci France mooy euh, région bi Bordeaux nekk mais dañ koy def buuru Angleterre yi ba Édouard premier ñëw benke ñenke yi soof ko mu dajale leen ñoom ñëpp en 1290 dàq leen ñoom ñëpp yahud yëpp la fay génnee Angleterre ne bu fi benn yahud nekkati bi ñu demee tuuti rek euh, nga xam ne léegi dugg nañ ci période médiévale bi après mooy euh, am na benn pape bu ñuy wax six quatre moom moo joxe ndigal ñu def li ñuy wax inquisition mooy nañu dugg ci empire yi nga xam ne c'est des empires chrétiens ña fa nekk mboole seen ñu saytu seen ngëm ba xam ndax ci dëgg lañu ne wala nekkuñ ci dëgg ku nekkul ci diine chrétien ñu teg ko daan yu dëgër wala ñu rey ko wala mu tuub loolu moo indi li ñuy wax les marânes juifs nga xam ne ñoo nekkoon ci péninsule ibérique bi biñ inquisition yi tàmbalee amuñu mel ne pexe mënul tuub waaye tuub gi ci kaw la du ci dëgg ci ñoom du ci biir gi ñenn ñi tamit tasaaroo dem installé wu Hollande ñi ñi ci des dem installé wu Belgique pour quand même moytu euh, coono yi ñu leen di teg waaye installé nag li ñuy wax une finance très puissante en Hollande Euh, ñenn ñi dem ci empire ottoman bi parce que musulman yi tout le temps dañ leen doon toléré moo tax bi ñu fa demee euh, Selim II accueillir leen léegi nag am na fa benn juif bu ñuy wax Joseph Nazi moom moom la ñuy wax euh, le duc de Naxos et le seigneur de Tibériade parce que ay grade la yoo xam ne mi ngi ko am ci ci Selim II mais le seigneur de Tibériade mooy kilifa judée nga xam ne kon depuis bañ leen dàqee ñu tasaaroo amatuñ fa accès pour la première fois am na benn juif bu fa am accès kooku nag moo dem dekkalaat muru Salomon bi mur des lamentations bi installé waat fa ay commerce pour dundalaat dëkk bi pour wax yahudi ne leen ñibbisi leen donc moom aussi moo financé guerre bi nga xam ne contre Philippe II benn guerre la ci biir royaume d'Espagne looloo tax Hollande dagg Belgique dagg ma ñu nekk ay pays yoo xam ne dañoo libre euh, bi ñu demee ba ci kanam tuuti nag protestantisme aussi juddu na te bu juddoo euh, parce que église bi dafa amoon ay abus souvent dañuy lëkkaloo ak le peuple juif moo tax protestants yi ñu juddoo te juifs yi amoon ay ay moyens ak bi ñu découvrir eh, bi Gutenberg créé nu mu tuddati mm, imprimerie fekk Luther traduire la Bible en allemand ñoom ñoo ko imprimer mu tasaaroo bi ñu demee ba 1717 léegi nag ci la première temple euh, ci la première loge maçonnique juddu en Angleterre bi muy juddu ci diggante ñaari nit la juddoo mais bi mu juddoo rek ba siiw Euh, pape bi ñuy wax Léon XII daf ko condamné l'Église a toujours sorti des bulle pontificales maanaam fatwa lay tollool ci ñun pour condamner la franc-maçonnerie parce que euh, pax mi nga xam ne moom la templier ya duggoon bañ leen euh, dàqee booba lañu fëlaat rek mu nekk li ñuy wax société secrète yi te boobu gis nga ne ca njëlbeen nga jiiñoon nañ leen hérésie maanaam ñàkk ak idolâtrie ak jiiñ leen pratique homosexuelle ak sodomie donc bu judduwaatee su la forme des sociétés secrètes day amaat danger bi nga xam ne moom la yoroon mais ñoom aussi dañoo doy waar parce que euh, dem nañu ba diggante Pape Pie XII ak Jean XXIII ak euh, Clément VI après euh, condamnation yi daal dafa mujj ñu bàyyi ko bàyyi ko donc li tax politique bi ak diine ji neexul a teqale ndax ma ne su koo def mooy yahud yi tamit dafa am ci yu ñuy sukkandikoo mooy l'Ancien Testament tawraat moom c'est yàlla dafa dogal mu bokk ci ay téere moom suñ borom kon téere boobu mënta réeral ay nit bi ñu waxee ne mas messi bi dina ñëw gëmuñu ko it dafa am leneen loo xam ne moo am gannaaw Seydina Isa ibn Maryam mooy li ñuy wax la kabaal kabaal boo xoolee ci jullit ñi jullit ñi mi ngi tolloog tasawuf ci ñoom euh, bu dee catholique yi la gnose maanaam c'est une porte xam-xam la bu xóot ci wàllu diine spiritualité de dëgg am nañu ñaari téere nag yoo xam ne Mishnah ak Gemara ñoom ci lañuy sukkandiku Euh, di àtte li nga xam ne moom lañuy doxal ci programme bi yahud yëpp nekkuñu woon ay kabaliste waaye kabal mujj na lekk maanaam juif orthodoxe yi ba ñëpp dañoo mujj doon ay ay kabaliste donc am na benn juif nag benn rabbin bu tuub boo xam ne bi muy dugg dans le catholicisme ci la xuloo ak benn rabbin bu ko yilifoon bu ñuy wax Moïse Nahmanide kooku moo ko ni ci lii ngay dugg ay caaxaan la parce que messi bi ci boppam ñëwagul ndax moom suy ñëw seen pape bii nga xam ne moo fi nekkal imposteur bi muy Isa ibn Mariam la ci jublu bu boobaa moom ci boppam ci ñuy lëkkaloo ak ñi nga xam ne dañuy fexe ba peuple juif dellu Palestine ci lay bokk maanaam yëng euh, masiix bi mooy ñëw ci pape bi ne ko fexeel ba peuple juif dellu Palestine kon yow euh, ay caaxaan rek moom ngay woote loolu nag bari nañu léeg-léeg aussi ci seen biir ñoo xam ne dañuy jékki-jékki euh, wax ne ñoom ay messi lañu mais ci prophétie bi pour messi bi ñëw il faut que juif yi nekk fépp ci àddina bi